waaw te te boo bàyyee sa maire yi ñëw di ànd ak Macky Sall mu def la ministre risque yi lay mën a dàqalu daa bari parce que boo xuloog Marème mu dàq la boo xuloog Farba mu dàq la bu la santeen njub lang boo muy boo ko defut mu dàq la après boo bu élection ñëwee boo perte sa gox ñu dàq la mais bu dee Ousmane Sonko di nga xam ne Marème Faye mooy xulool foofa mu lay dàq amu fa am Farba Ngom ca wet ga amu fa te wóor na la la perte élection ak gagné élection bàyyi wala ci ministère bi li la fi bàyyi mooy boo dee jubal tey liggéey mën nga fee yàgg loolu moo tax kóolute bi nga xam ne ku mel ne Serigne Gueye Diop tey Ousmane Sonko defu ko defu ko maire te pourtant bàyyiloo na ko maire mu bàyyi loolu nañ ko boole ci bilan matériel bi nga xam ne Sénégal xamul woon loolu Sénégal xamu ko woon <coughs> suñ ci jógee waaw loolu kon day bokk ci bilan yi nga xamante ne mënees na ko boole ci bilan immatériel bilan immatériel ba léegi mooy Bougane Gueye day toog di wax ci Ousmane Sonko ak Jomaay jàpp ne wax ji ñàng na bam ne na ma procureur woo ma ne ko Bougane procureur du la woo li ngay wax makki sàll mu yóbbu la rëbës boo ko waxee Jomaay da lay yóbbu RTS li ngay wax jom Macky Sall ngay dem rëbës kooku moom moom ngay wax jomaay jomaay yóbbu la RTS loolu nañ ko boole ci bilan 100 jours yi donte Bougane nit ku maal honnête la moom bëgguma woon a sax wax ci waxam waaye comme tudd naa ko ci baax na parce que man mënumaa nangu yow Bougane Gueye nga toog daal di wax ne am na benn commerçant ca Touba dafa dem Nicaragua donte Nicaragua ba muy tëj kenn jaaratu fa Macky Sall la fi nekk loolu moom du dëgg waaye nee na xam na benn commerçant bu jógee Touba dem Nicaragua kon cent jours joma yi baaxul xam na benn commerçant bu nekk Sandaga dem na Chine kon cent jours joma yi baaxul waaye Pape ñaa Niang andil na la RTS ci sa déclaration bi ngay def nga ne waaw Pape Alé danaa ko laay gërëm daal koy gërëm ci sa kii dem ca page Facebook gërëm Pape Alé waaye léegi benn commerçant ca Touba bu demee Nicaragua mag jomaay nga koy xase te yow léegi micro RTS ñëw na sa sa kii doo ko taggee jomaay loolu mooy mal honnête moom kay waroon naa wax ne 100 jours yii waay waay am na benn changement bu fi am bu ma xamul woon mooy man Bougane maa ngi toog di def déclaration RTS ñëw na te man nag doonte loolu ànduma ci ndax moom Pape Alé laay waxal parce que démocratie nag mënut wër la jur anarchie parce que am na ku ñuy wax majj majj de defe naa ngeen koy wax ah donte nag moom maa ngi leen ñaan ngeen ngeen bàyyi ko xel di ko partagé buy woote ngeen koy wuy ji parce que dafa def sacrifice bu rëy mooy jaay sa kër jënd ci oto jënd ci costume jël ci garde corps fas yéene opposé wu loolu sacrifice la waaw kon na ngeen ko dimbali parce que xam naa da cee fàttee sangoo bay ren waaw mais moom ak ak ak ak góogaan wuruñoo def ay conférence de presse maanaam RTS di fa ñëw loolu moom du yoon parce que nag Pape Alé bu fekkente ne Bougane bu defee nga indi RTS bu Madji Madji de defee nga indi RTS kon nag bu Fouta Tampi def na nga indi RTS parce que nag ñoo tolloo daraja ci réew mi ay njiitu mouvement lañ rek noonu nañ waxante dëgg rek lan moo wuutale Bougane ak Fouta Tampi Bougane du ancien du ancien candidat du ancien maire du ancien député du ancien ministre maanaam du ancien dara moom daal maa jiite mouvement rek mais Fouta Tampi am na mouvement ma ngi koy ñaawlu parce que rafet na nag parce que démocratie la mën nañ koo rafetlu parce que ci 100 jours yi la bokk ci bilan bi la bokk waaye nag man de man de bu ma yoroon RTS man bu bu bu Barthélémy wootee ma dem bu Khalifa wootee ma dem bu Thierno Alassane Sall wootee ma dem bu Mimi Touré wootee ma dem parce que ancien premier ministre la mais mais buugaat loolu du yoon. loolu du yoon wax dëgg yàlla <coughs> non ancien rakale mooy la mais yow nga xamoo ne kii ci rakale yi la bokk nu mu tuddati salaam jàll salaam dañ ko rakale bi ah oui amoon naa yéene kay amoon naa yéene dem Màkka daa tax bee avion yi fay <coughs> <coughs> loolu du yoon léegi ñu ñëwaat ci beneen boo xam ne bilan la te ci 100 jours lay bokk mooy président de la république damaa wax sànq cent jours damaa wax sànq cent jours sans transhumance mais cent jours sans média étrangers loolu itam xamuñu ko woon président de la république buñ fal mu def cent jours amul benn média étranger bu ko dékk micro muy expliquer ay étranger qui que ce soit loolu musul am musul am kon tey bu loolu amee président de la république wax ne waaw li tax ma def ko mooy bëgguma sama génn bu njëkk may wax ak ay étranger damay wax ak sama waa réew loolu jaro woon na correct ak association yi ëmb journaliste Sénégal yi ñu bind ñu bind ab nag remercier président de la république ci acte boobu mu defal presse su Sénégal te xamuñu ko woon loolu jàpp naa ne waa journaliste yi da leen a sape mais nañ ko def parce que liñ xamoon nag mooy président de la république buy wax du ale sax ba xam Sénégal la koy waxee wala feneen la koy wax kon nag loolu rupture la boo xam ne Sénégal xamu ko woon te xam na ko tey ah leneen li ci des mooy toog 100 jours demoo France 100 jours sans sans transhumance censure sans média étranger mais censure sans France waaw danañ ma ne nag jomaay demoonam demoon na France déedéet demu fa taal avion bi na maa ngi seeti papa Macron loolu jomaay defu fa africains yi ñoo ne dañoo war a waxtaan tey jii suñu ndaje mii sama conférence de presse ngeen ñëw mais ñëw relais taxu leen a jóg bu ma ne woon Sénégal set la wala Sénéweb la wala feneen dem da ngeen ñëw seen yoon ci fañ koy defee jomaay président africain yi ñoo doon daje ñu ne France la ñuy dajee sement yoonam ci fuñ koy defee mu dem fekki ay de d'état africain ay moroomam looloo ko yóbbu France mais taal suñu essence daan ne maa ngi seeti France loolu moom ci cent jours amagul woon amagul kon loolu tamit nañ ko boole ci rupture bi ba noppi taal sa avion bépp chef d'état bu nekk Afrique te ñun dañuy woote panafricanisme ñu jël seex Anta Diop def ko muy suñu idol jël Thomas Sankara def ko suñu idol kon donc normal na nga nurook esprit bi ngay woote nga dem wër ci chef d'état africain yépp seet loolu dafa bokk ci bilan i immatériel boo xamante ne mën nañ koo tuddal Bassirou Diomaye jaxar fay léegi kon Sénégal am nañ tey président boo xamante ne bokkul ci benn parti politique mënoon nañoo xeex bay bëgg a dee ñu doog koo am am nañ ko Sénégal am na président boo xamante ne def na déclaration patrimoine am xam nañ ne lii la am te def loo na ko ay ministre am def loo ko ay DCM am nañ président boo xam ne ministre yi mu fal wóor nañu ne ci ak bëgg Sénégal ak am yaakaar ci ñoom ci la ko teg mais ko ci benn calcul politique loolu Sénégal xamu ko woon Sénégal am na tey président boo xamante ne euh, maanaam Sénégal am na président boo xamante ne wóor nañu ne amul benn complexe ci ay français wala mu am ko ci ay riche wala mu am ko ci ay naar wala mu am ko ci kenn loolu dafa nekk loo xam ne Sénégal ah xamu ko woon lu jiitu tey ñuy woote lii nga xam ne mooy parti Pastef ah suñ ci jógee am na loo xam ne nuru na matériel mooy waaye du ko du wala du doon cent pour cent matériel mooy nga ñëw ñu ne la looy def nga njëkk a xool ki gën a néew doole ci biir askan wi muy ab baykat nga xam ne dañ ko mëstafaale musuñu koo def dara nga ne dinaa fexe ba bor yi ma ko ameel ma fay ko ko dinaa fexe ba problème am yi mu am ñoom laay njëkk a régler seen i jafe-jafe muy baykat yi fexe ba engrais bu doy am te yomb mais li ci neex mooy nga ne ah man kat formé gu ma nit koo xam ne wóor na ma ne bu ma ko joxee engrais bi du ko sàcc waaye fekk naa fi ñu gën a maandu ci tey ci république bi muy ay soldats jël naa engrais bi kon ma jox leen ko nañ fexe ba baykat ba gën a néew doole na ci jot loolu xamuñu woon président de la république buy doxale noonu ak ay néew ci doole suñ ci doolee li fi jaar ci tabaski bi ci volonté bi ci El Malick Ndiaye jaare suñ ci doolee président de la république boo xam ne dafa xam ne nawet a ngi nii di ñëw mbënd maa ngi ñëw te mën naa bari waaye man de awma temps pour defar parce que sama digganteeg li fi ja li fi des sama diggante ak mbënd mi dafa gàtt mënuma koo régler waaye li ma man mooy chaque mois ma génn yor sama bale di bale mbedd mi di sécurité euh, tinal yi ak ak kanaali yi pour sax ma mën a wane ne def naa li ma man pour ne lii laa man moo fi xaj lii laa fiy def loolu itam bokkul woon ci yi nga xamante ne xamoon nañ président de la république boo xam ne noonu la doon doxale ak ay askanam suñu ko toppee day bari léegi nag lii li tax mu am solo te a wax mooy sëñ Tuubaa dafa wax ne nafsi yi taqoodul hijaaya dëhërakal faras walam aqul fii isay an mislisal xaras mu ne sama bakkan bi mu ne daal bakkan boo xam ne dafa jiital am xel xam nga li jiitum lu war a normal mooy xel moo war a jiitu mu ne bakkan bu jiitum xel comme ni nit comme ni ñuy jiitale aw fas mu ne waaye garaaw na de loolu ñu ne waaw <coughs> mu ne waaye li ko gën a garaaw mooy walam aqul fii isay an misla sil maanaam waxoo dara mel ne loolu dafa normal Sénégal lii fi am nii te amu fi woon loolu su fi jaaree dañ ko war a xàmmee xam ko noté ko président bi xam ne xam nañ ko askan wi xam ne lii xam nañ ko parce que nag États-Unis d'Amérique ñi ko fondé boo seetluwaatee dëgg-dëgg sax leader yi ñoo nekkoon au tour mais du population bi mais population Sénégal tey ñooy population boo xam ne ñoo mën a ñëw ci biro de vote ñu tegal la ñaari bulletin ne la bulletin bii ab milliardaire moo ko moom waaye njort nañ na jubut bulletin bii nag ab moo ko moom waaye njort nañ ne ku jubla la nga romb bulletin milliardaire bi jël bulletin pauvre bi wate ko loolu la peuple Sénégal def muy entre Amadou Ba ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye kon peuple boobu peuple bu xarañ lañ bu yeewu sacrifice bi Ousmane ko def ci politique dafa fekk mu nampatal parteem bañ man ko cee topp ñu topp ko ci mais dafa fekk ne sénégalais yi tamit gis nga su mbirum sonk mii suñ ci doon wax li ci li ci li ci nekk ci ay jaar-jaar ci ay sénégalais kenn mënu ko wax xoolal imam Thiam mooy Ibra sama imam bi nu mu tuddati imam Mbay Mbay Thiam paab mi naan booyee booyee boppam booy Thiam dafay wax ne man samay doom buñ dee woon ba jeex ci affaire Sonko bi neex na ma parce que xam naa ne Sénégal man am na benn paa bu ma mas di seetloo di ma jox turu doom yi may seet muy jox turu doom yi ma naan ko kii de nangam ba mu yegg si ci kenn ki ne ma kii nag moo ma ci gënal sëñ Baara ñaanal ko bu baax ma ne ko lu tax ma ne ma dama koo gis ci TikTok bi muy xeexal Sonko wallahi xam naa koo xam ne ñas la sant dëkk lew na magi Seex Tijaan ñas mii la ñu koy wax Cheikh Sidi Mouhamad Cheikh Mouhamad Sidi deux mille vingt et un ba tey sec guddi day wérd onze mille cent onze ismul jalal ndax Ousmane sonk Ousmane Sonko di woo rakkam Cheikh Tidiane Cheikh ne ko Sonko laay waxal te ngaa wax ak moom mu ne mukk déedéet du ma wax ak moom ñu ne ah waaw ni nga bëggee Sonko lu tax doo wax ak moom mu ne déedéet jëru ko moom day jaamu yàlla ci senegal may jaamu yàlla ci moom noonu laa xamee ay sénégalais yoo xam ne sama benn xarit bu ñuy wax Mouhamed Diop ak yeneen ñaari sama yeneen ñaari xarit yoo xam ne léegi laa leen menacé ne leen bu ngeen ma joxut ku ne un million dinaa leen tudd ci micro yi <laughs> parce que li ma xam man ci xaalis mu jaar ci sama loxo wala mu jaar ci ay activités yoo xam ne Pastef a koy def ñu ciy dugal seen alal buñ leen ko delloowaatoon tabax na immeuble bu rëy bi ñu faloo dama leen ne waa man téema leen a ñaanal audience ko recevoir leen daf ne ma ah waaw gis Sonko xanaa ñu fatawoog moom ndax bëgg nañ ko de waaye ñu amul lu ma koy doyee ma keroog El Malick Ndiaye bi mu ñëwee sama kër am ñoom ñaar laa ko doon nuyoo leen da koy tooñ naan ko kii sëñ Cheikh Thioro xam na ko kii sëñ Cheikh Thioro bam naa ma yaa ngi koy baamu rek lu mu doon ñooñu ay sénégalais lañ yoo xam ne génn seen alal def ko ci parti boo xam ne bokkoo ci bëggoo gis leader bi bëggoo ci poste bëggu maanaam buñ la naroon a tudd ci micro bi sax jalal na la nga joxe un pour bu la tudd ci loolu loolu mooy peuple Sénégal léegi peuple boobu nag fii lay jeexale daanaka parce que mu ngi bëgg a yàgg te dafa tàng fi trop donte waxtaan bi dama ko bëggoon a teewloo kiiwul parce que ñuy wax ci ginnaaw dafa bari waaye peuple boobu dafa militoo Bassirou Diomaye Diakhar fay ñu am constitution bu bees boo xam ne moo leen di tënk constitution boobu day miri day méngoo ak li ñu sësiire ci njàng mi ñu jàng ci révolution bi ñu jóge entre ñun ak président Macky sàll ak ñim mu ñu sësiire ci ay ay loi sësiire ci ay doxalin yu bees yoo xam ne dinañ xam ne lii kat mi ngi ci suñu constitution te ñi ngi ko jëlee ci ginnaaw bi ñu xeexee ba noppi lii lañ tëggaat comme constitution parce que li ma gis mooy sénégalais yii sénégalais yii politiciens yi mënatuñu leen a nax te ñoo leen raw sénégalais xoola majj majj de di jaay sa kër pour mën cee politique te yow bari ki démb sénégalais yi laaj la benn seul sacrifice mooy wannal say say bëgg-bëgg nga ñëw topp Ousmane Sonko parce que dañuy def révolution nga ne déedéet yéen sénégalais yi bàyyi leen Sonko ak seen bëgg-bëgg yi ngeen ñu topp ma baraa dafee rek sénégalais yi maanaam sénégalais yi bàyyi la fa sénégalais yi ñoom dañoo am fu ñu toll te loolu boo ko seetee ci bu xeex jotee am na sama benn paa boo xam ne maa ngi koy woo boobu ba léegi pour bëgg mu toog fii ñu koy wax paa jàmbaar Diouf anam gis nga paa bi yaa mi ngi ci ñaata à l'âge de 72 ans wallahi asim da dem front barke alxuraan front la doon dem takk dàll yi dama ko doon ñaan bay jooy bul xeexi maag doomam ñooy ànd front lay dem takk dàll yi taxaw di xeex te 72 ans la am docteur la clinique la yor bu dee alal am na ko bu dee leneen nag leneen am na ko gis nga li mu liggéey ci pat ci ci ci ci bi ñuy defal parrainage Bassirou Diomaye Faye ñaata parrainage la man na 400 et plus